donc gis nga fi mu daaneele dafa am solo c'est-à-dire day montre ne procès bii ni dafa am lu ko tax a jóg. lan moo ko tax a jóg. c'est-à-dire procès moral lañ ci jublu c'est-à-dire lan moo tax mu fay dem posons-nous la question de savoir est-ce que am na droit dem fa wala amul droit dem fa yéen wax état de droit am na pleinement am droit ne fii laay fajoo loolu benn mbir la bi ci topp moom mooy ne dane procès bi Ousmane Sonko moo doonu ci wootee ne dañ ko war a leeral dëgg lu ne fàng kenn du ko jeex sénégal yëpp xam nañ fi dëgg féete parce que 2021 ba léegi nga ne damaa ëmb yaakaar naa ne koo xamante ne dafa wan lor jigéen bu nekk ci diggante warul dépasser neuf mois bu fekkee ne lépp jaar na yoon bi ci topp moom mooy nga am quatorze témoins wala quinze quatorze yëpp ne dañ lay disculper ci li ñu raconté dossier bii nii waru woon a jéggi gendarmerie yaakaar naa gis nañu le cas du capitaine Touré donc am na ci loo xamante ne jarul sax président ko naan day setal boppam wala déedéet askanu Sénégal xam nañ ne dossier bii nii wax dëgg yàlla ay caaxaan la parce que li ñuy nattee dëgg moom mooy wax dëgg yàlla cohérence ak logique te Adji Sarr ak ñi mu àndal bu ñu waxee lii tey suba ñu waxeet ko joxe naa sànq firnde ci mu ne dafa ëmboon ak yeneen ak yeneen donc par rapport ak euh, li mu wax ne ñun état de droit ku war a jiite réew ak patriote loolu ñun dañ ko comprendre Ousmane Sonko n'a jamais discrédité les institutions ah, ouais? ah oui j'assume mes propos xam nga fan la ñuy déggee wax moom mooy ne ñi nekk ci institution parce que à chaque fois il a fallu que mu def ay précisions de taille yu am solo ba nit ñi mën a comprendre ñi bëgg a réeral askan wi moom mooy ne institution du ña fa nekk ñëpp ñu ay pommes pourries. mais bu Ousmane am na ci ñoo xamante ne dafa dàgg non mais bu ñu nee la justice am na ay magistrats yoo xamante ne am na ay magistrats yoo xamante ne xam naa leen ñoo ma gën a intègre ñoo gën a intègre rek ñeneen ak ñeneen ñoo gën a jub mais ñooñu duñu toucher les dossiers yi nga xamante ne ce sont des dossiers brûlants wala politiques. parce que xam nañ ne ñooñu seen niveau d'intégrité ak seen justice fi mu toll ci ñoom ñooñu du ñu wàccook seen i principe mais nag bojo bojo yi la ñuy leen jox yenn dossiers yi pour ñu mën a def le sale boulot maintenant ci kaw loolu président non je termine vite fait am na ci loo xamante ne ñun ñëpp fii lañ ci teg suñu bët président Macky Sall moom moom moo taxawoon 2011 ne bu fekkee ne Ablaye Wade dafa nar a briguer le troisième mandat dañ koy dem déloger ji palais donc waa APR ñoom amuñu ay leçon de morale ak sens de la responsabilité boo xamante ne mën nañ ko jàngal ñi nga xamante ne ñooy militant Pastef yi parce que patriotisme dañ koy dund véritable euh, Kajoor